assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakatuhu mbokk taalibe yi mbokk am di jam yi suñu soppe suñu xarit ak képp ku ñuy siiful ci chaîne youtube bi di mystique 5995 TV man seigne abdullah ndjay ginnaw bu mu nuyo ñep ziar leen ci aljuma bisub aljuma tay gi def ci balu ñep haq tay nak ma indi leen njëriñ ñu reuy ci ko xamantene rab da ko sonal ak walum andale mu bëgg ci kaaraange bo xamantene non seulement da koy ar way day tax ñu may ko jam tay nak limu leen ci indi lu simple muy tour yi di asmaul barhatia muy 28 non suryaan yi nga xamantene tur yi siiw la li ko tàmbalee ci barxatihin barxatihin karin karin taddihin taddihin tawran tawran mazal mazal mazal mazal tarqabin tarqabin barxashin barxashin xalmashin xalmashin xawtiirin xawtiirin xalnahuudin xalnahuudin barshaan barshaan kasiirin kasiirin namusalaqin namusalaqin barxa yola barxa yola bashkaylaqin bashkaylaqin qasmazin qasmazin an galaliitin an galaliitin xabraatin xabraatin gayaha gayaha kaydahola kaydahola shamqaahirin shamqaahirin shamqaahirin shamqaahirin shamqaahirin shamqaahirin bikaxtahuniyatin bikaxtahuniyatin bisharishin bisharishin tuunashin tuunashin shamqaa baaruqin shamqaa baaruqin maa ngi leen ci indil njëriñ lu rëy muy képp koo xam ne rab da laa sonal wala wàllum àndaale wala nga gis ne da ngaa tëju wala nga gis ne loo yaakaar day tas wala nga gis ne daal say mbir am na ñuy nekk di def ci yow ba loo dugg du sotti wala loo dugg mu échec lii ma leen di jox 28 non suryaan yi képp ku ko xam xamal ne tàqalikoo nga ak lii may tudd ci ay gàllankoor muy cat ak làmmiñ ak liggéey bu bon ak ay irsaalu xaatif ak kort ak lépp a ci yem moom képp koo xam ne def nga heure boo jullee ba pare nga jàng ko benn yoon wala ñetti yoon incha allah rabbi ba waxtu ba di dellu si kenn du la mënal dara te ku xëy sax d'ailleurs jàng ko suba gi benn yoon ku xëy teel gi jàng ko sept fois ñoom tur yëpp nga jàngandoo leen sept fois comme ni ma ko jàngee xamal ne ba keroog jant bi di so lu waay def ci yow mu këpp si kawam kenn du la mënal dara du nit du jëm du jinne du nit du jinne duñ mën ci yow dara ku dem tamit ginnaaw timis wala ginnaaw tàkkusaan nga jàngat ko cette fois xamal ne guddi gi yëpp am nga protection yow ak ñi la wër ndax foo ko jàngee rek rawaan yi ak jinne yi dañuy ñëw yu baax yi nekk bouclier sa digganteeg li lay lor waaye képp koo xam ne rab sonal na la fexeel nga bindalu ko juróom-ñaar yoon turi yi nga di ci naan di ci sangu wala nga di ci naan di ko diwoo boole ceeg di sikkar tur yi juróom-ñaar yoon maanaam def ko tarbiya juróom-ñaar yoon saa boo jullee waxtu julli juróom nga jàng ko sept fois incha allahu rabbi waaye baax na nag képp ku koy jëfandikoo nga am ci ndigal nga fekk koo xam ne kilifa la nga tàgg ko ci mais 28 non suryaani képp ku ko recherché ci internet da nga ko fa gis tur yi siiw la yoo xam ne siiw na waaye njëriñ li nit ñi dese nañ ko xam te dese na peek peeg tur yi man nag yàlla dimbal na ma sant nañ bu baax ndax jàng nañ ko ba xam ci lu bëri ba maîtriser ko am ci ay muux ak ay téere yu bëri waaye tamit jàng ko di ko jàngale am na ñoo xam ne jàngal naa leen si wan leen ci ay bunt yu leer ci ay tarbiya ci ku bëgg rawxaan ya wala lu mu mënti doon waaye tur yu loo yoo xam ne daal kibriitul ahmar lañ maanaam lépp lu waay sàkk ñoo ca gaaw ak lu mu mënti doon ci zaay rek ci baatin ñoom lépp la ñuy def asraar bu yaatu la na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax seen bokk seen taalibe sëñ Abdoulahi Ndiaye fii si Mbambilor borom mystique 5995 TV YouTube abonné leen macha allah.